population 15 hectares comme ni ma ko waxee ci kàllaama nasaraan mooy loo xam ne ñëw na suñu biir bi ñuy doog a ñu wax population bi ne ñun dañ fa bëgg a def benn dépôt loo xam ne day ànd ak euh, seen liggéey bi ñuy def muy euh, l'exécution de la deuxième phase du terre. bi loolu amee ñu contacter la population population bi ne leen comme projet d'utilité publique la lii ngeen bëgg a def bu ngeen paree da ngeen di jëlaat seen bagage dem population bi day delluwaat récupérer li mu am comme suuf mais malheureusement ñu toog ba le 30 mars ñu jot benn délibération boo xam ne mairie Kër Moussa daf ko def lu teguwul fenn lu teguwul ci yoon lu teguwul ci dëgg parce que ñun dañu jàpp ne dafa am yoo xam ne dafa simple te dafa yomb trop lu doy ne projet bu mel nii boo koy def wàccal nga rencontrer la population wax ko li nga bëgg population bi mën la wax ñom li ñu bëgg mais malheureusement yooyu yëpp amul parce que dañ ko abrogé moy kané wara rencontrer population bi mais def ben rencontre bo xamné c'est sélectif dajé quelques nit wax leen né ñun dé li lañu bëgg def ñu tënk ci loolu monter sen dossier pour mëna def délibération à la municipalité de Keur Moussa moy luñu nakari luñu metti ñukoy ñaawlu lool

amal courage ñëw la population bi wax ak wax ñom ci cadre deug ñu mëna mais si nous bañu andil ñu nous délibération nous, xamné ñu ne APIX jox surface 15 hectares parce que daf ci def siège am benn poste gendarmerie am benn dépôt des xamné peut-être pour stockage am ay édifices yoo xam dañ koy def ci dans leur jargon ils disent des logements d'astreinte bo nee logement d'astreinte ñu bari duñ ko mëna comprendre ci suñu côté yi mais lu ñuy wax juste mooy que ne parfois liguey bi ñuy def ci terre bi amna ils sont en flux tendu moy que ne dañuy def H24 wala 7 jours sur 7 pour baña sori c'est un lieu de prise de service mo waral parfois ñuy def ay logements yoo xam ne nit ñi dinañ fa mëna mais l'olu day population mi nga wax leen mais que des prédateurs fonciers parce que nous wax ce qu'on appelle détournement d'objectif te moom la sur les 15 hectares ci la population de Soun, principalement sont les plus impactés ñoom dañuy laaj li ñu moom nañ leen ko delloo ci njëkk parce que nag li gars yi def mën nañ ko def li gars di def mën nañ ko def mais à chaque fois bu ñu ñëwee bëgg ci def dara ils trouveront la population ici déterminée taxaw pour récupérer lo xamné ñom ñoko mom donc cadre bi ma ci lancé moy di ñaan l'autorité centrale monsieur le président de la république monsieur le premier ministre population Soun, à travers sa nous dañuy ñaan ñu corriger les erreur la population nous li ñu ndax dafa population bi gisu ci te mi ngi continuer te bu population bi dina réagir

dañoo toog ay jamono ba jot ci chef de village bi nekk fii ci suun gouverneur yónnee ko benn bataaxel ne ko tracé terre bi dafa jaar sa village ñëwal nga wuyu ma fii ci gouvernance bu Thiès convocation boobu dafa làmboon chef de village làmba président CVD boobu jamono ku ñuy wax Serif Moustapha Cissé moo nekk président wu CVD bu suun mu amoon ngànt mu ne naa ko demal kon li may wax dama ko fekkee dama ko xam gouverneur bu ñu demee ak asawu wu APIX dañoo defal maquette maanaam maquette teer bi ak suuf yan façon ndàmpaay la am ak bu ñuy jël sa suuf nan ak nan ak nan lay demee ci gàttal ñu ne nii loolu moo taxoon ñu woo leen waaye ñibbi leen ba loolu bu tàmbalee dinañ leen woo ci sous bu Pout même waa yi nga xam ne moo yoroon magat ba ca gouvernance bu Thiès moo ñu doon questionné fii ci Pout li tax may tàmbalee foofu mooy yañ waxoon Thiès bu ñu ñëwee sous préfecture bu Pout wax yi dafa waroo te même nit ki moo ko waxoon même engagement même li ñu la yenn ci wàllu suuf si nga wax ñaari wax mu waroo waroo yi nag dama ci njort li tax ma njort yi mooy bi sang boobu wooyee buñ boobu ñu bu mu ñu wooyee sous daf ñoo woo mu ne dafay dajale ñëpp ñi nga xam ne am nañu suuf ci fii tracé terre bi war a jaar ñëpp lay dajale ci benn salle ñu jékki-jékki monsieur le maire bu Kër Moussa ñëw ak préfet bu Thiès jamono yooyu xamatuma turam bi ñu ñëwee protocole boobu waajo waxoon dafa ko daal di changé ci changé moo tax ma dama ñaaw njort parce que dafa waxoon day dajale comme ni ñu toogee nii ci ëtt bi day toog ci kanamu ñëpp expliqué leen mbirum teer bi nan lay demee ku ñu jël sa bâtiment wala ku ñu jël sa tool wala ku ñu jël sa nii ak nii ak nii lay demee ñu dox minit maire ñëw sous-préfet ñëw waa ji nee na léegi dootul laaj mbooloo bi yëpp day woo kenn par kenn foofu xel fa la commencé ñaawee parce que li tax ma wax mooy lañ ñu waxoon dañ waxoon ne seen à peu seen suuf fi ñu toll nii ci Sénégal bu ñu leen doon dàmp baram bi mu ngi toll ci à peu près bii ci xayma mu wax benn prix mais bi maire ñëwee ak préfet bu cees waa ji nee na suuf si léegi amatul fay domaine nationale la domaine national la domaine national bu ñu jàpp àll rek mooy domaine national loolu tamit nax naxaate boo xam ne ñenn ci ñooñu état dañ koy naxee nitu kaw yi domaine national mooy suuf su xam ne état moo ko moom amul benn titre boo xam ne jox na ko ko pour kii wala pour kaa pour ñëpp la ba ña ci dëkk ci la ñu bokk mais domaine national boo xam ne ali am na délibération ndax kayit juddu bu njëkk ci suuf mooy délibération fii amatul àll amatul ndànd fooy fooy fii foo fi gis dëkkuwaay la wala ay tool tool yi am na ñoo xam ne am nañu délibération dëkkuwaay yi alignement yi nga xam ne coordonnateur moom la tàmbalee mooy kii fi nekk nii di maire Momar Ciss moom moo ko signé délibération yëpp moo ko signé koo fi gis am na ay parcelles mu téye ko ci loxoom APIX mu ñëw mu ne léegi fayatul suuf garab lay fay wala bâtiment mais doo wax suuf da nga naan fay duma kër parce que terrain bu ñu lotisé nga ne am naa 15 sur 15 bëgg koo def dëkkuwaay mais bu ko boo bu ko tuddee tey suuf kese léegi du ma fay kër bu ñu tabax ak kër boo xam ne dañ ko fondation wala plan kese da ngay wax wax ji mu leer parce que loolu bu amul day mel ne dafa am foo xam ne du ay kër ay àll la fii yépp kër la demal fa tracé terre ba jaar boo fa demee à face de tracé bi yaa ngi gis kër sa sa sa sa sa kanam kon moo lay wan ne tey terre bu fa jaarul woon foofu kër mënoon na fa nekk kon boo fa jëlee nga ne dañ koy def terre lii yàlla mooy nit ki nga xam ne fii daf ko bëggoon dëkkee ndax nitu kaw yëpp président Bassirou Diomaye fay nitu àll la comme ñun ci waxin wala béykat la doon boobu mu doon béykat gis nañu at yi mu njëkk a def moo tax ñu am cawarte di ko gaaral suñu jafe-jafe li ñuy njëkk a sàkku ci moom mooy ki nga xam ne moo fi toog tey toogal fi APIX na ko sant mu auditer ñii ñoo ñii doon questionné béykat yi moom suuf yi na ko questionné na ko na ko auditer na ko topp ba xam naka lañ leen dàmpee est-ce que jaar na yoon est-ce que jaarul yoon loolu la ñuy ñaan ki nga xam ne moo fi toogal APIX guddi yi ñu toll nii. parce que nit ki mënoo jël toolam jël fi nga xam ne waa waajuram xàll na ko am na juróom-benn doom wala am na fukki doom mu ne Mamadou boo demee ba am jabar tabaxal fii wala boo boo demee ba mu sa fii ngay tabax mu doon sa kër. kumba fii mooy sa kër paate fii mooy sa kër foofu yépp abbi sa ñëw jël ko làkku ci ginnaaw domaine national ne du fay kenn mais APIX ci boppam dafa am loo xam ne moo ko xaw a yoole li ñuy wax yoole maanaam waxam dëgërul li tax maanaam wax waxam dëggërul fii ñuy tudd nii Modou Ciss mi nga xam ne moo fi jóge sànq di ko tuddee dépôt ak fii tracé terre bi jaar eggul fii ma toog ak yéen si foofu ngeen toog fa la wala yem mooy xayma fii nga ne dépôt la nga nangu ci fay somme bi nu mu mën a tallu bëri na bëriwul mais nangu nga faa fay te da ngeen ne domaine national la doo ko fay yow nga fay fii nga tuddee dépôt mais fii terre bi jaar nga ne doo ko fay parce que domaine national la domaine national kay doo fay doo fay kon njortu dafay daal di ñaaw pourquoi nga nga làkku fii daal terre bi moo fi jaar man mii du ma fi mën a dëkk mais fële su ma ko su ma ci sàkkee ay pexe ba mën cee dëkk mën naa ko moomal sama bopp kon xel dafay tey moo tax ñu sàkku ci kii toog ci APIX APIX nag bu ñu ko waxee lépp lu fi nekk ci Sénégal ki leen yilif mooy njiitu réew mi ak gouvernement moo tax Bassirou Diomaye Faye dañ ko wax Kër Mousse dem na dem na dem na Mbourkat ba tudd fa Kër Mousse mais Kër Mousse ci boppam lañ koy sàkku ci moom mu dugal fi loxom bu baax a baax ak gëtëm lëndëm lëndëm yi fi am sama naataangoo Babacar ba la dëkk Càmboo wax na ko sànq amul defaraat amul jubbantiwaat amul lii arrêté nañu Mbourkat nañu arrêté Kër Mousse Momar Ciss ak ku mu mën a àndal na dindi loxoom ci suufu Kër Mousse ba mu set wécc loolu lañ koy laaj buy wax na wax ak ñun mais mënuñu feet nekk muy xool ku ko neex muy wax ak moom te buy wax day nëbbatu loolu dafa war a dàkk ñun duñu ay mala suñu suuf bu muy wax ne ay domaine national la am na droit pour jox ko ku ko neex domaine national la ñun béykat yi nga xam ne ñun ñoo moom suuf si ba bu ñuy wut promoteur promoteur bi ci loxoom lay jaar moo koy signal promoteur bi am sañ-sañu jaay moom Momarcis am sañ-sañu jaay ñun béykat yi amuñu sañ-sañu jaay amuñu sañ-sañu tabax loolu fan lay tege fan lay tege ñaata façon nit moo am doon nga mer rek am nga lu la neex def doon nga appuyer rek am nga lu la neex def mais ki nga fekk ci suuf si mu dëkk fi ay siècle siècle tey pour mu def yow lay neex yow mer wala yow lay neex yow apix la ñuy wax na dañ na sur le sang promoteur bu ci bëgg boppam wala zoomètre bu ci bëgg boppam ak noo mën a tuddee sa bopp moomal siisoo apixoo jaar nga ci ñoom ñu ne la kay kay levé ectare bi ectare bi village bi la wala village ba boo bëggee sa bakken laa wax boo bëggee sa bakken jaaral ci sàmm sa moomeel mu wax la lan moo xew amuñu beneen buntu ku sàmm sa moomeel beneen bi ci topp rek mooy terre bi nga xam ne tey tey su ma jugoon Dakar dugg terre bi da ngay dégg ñoo ngi yëmbal kii war a wàcc Kër Massar pare pareel ñoo ngi Kër Massar ki war a wàcc fu ci topp pare pareel léegi Kër Moussa lëm amul fooy wàcce pare pareel fan lay teg terre bi mu ngi AIP aéroport AIBD romb na Kër Moussa yépp deuxième phase bi jam ñaaja la départ dem aéroport AIBD kon romb na Kër Moussa ba jeexal ko Kër Moussa am na leeloo am na mbul am na suun am na tuuli am na baret am na kiñaabu am na am na balal am na am na lu ëpp ci centaine centaine de villages ah tey amul fenn fooy wàcce yow ngay wàcc te li ci gën bon jàpp nañu ne ci ñi ñu bëgg askan ñuy liggéey liggéeyu jub bala ngay defar teer balaa ngay defar aéroport da ngay xool village yi fa nekk yoon yi fa nekk moo war a jiitu salaamaaleykum maa ngi tudd imam Seydou Cissé di coordonnateur sàmm sa moomeel bu kër mu kër Moussa a tënk rek li ñu fi waxtaanee ci suba ba léegi point bi ci njëkk mooy wàllu suuf di yi nga xam ne am na ci suuf si par rapport ak li ñu fi détaillé xam naa buñ ci naroon delluwaat dina gën a yàgg waaye bëgg rek président de la république. wuyu ci suñu woote incha allah lii document lay doon boo xam ne ci la ñuy tënk suñu lépp bëgg mu may ñu audience boo xam ne ñun ak moom la ñu jox ko ko gis foncier yi nekk ci kër Moussa yëpp ñu jébal ko ko kon tey joytu bi mooy pour lan commune Kër Moussa ñi fi dëkk mënuñu jariñoo seeni suuf ñeneen di ñëw di jariñoo di bénéficier wu ay hectares yi hectares ci loo xam ne kenn xamul lu mu doon loolu mooy premier point bi suñuy ñaxtu bi ci topp mooy ñun dañu nekk ci diggante Dakar Thiès bokk ci région Thiès nekk ci département bi waaye amul benn yoon boo xam ni mën na la jële benn dëkk yóbbu benn dëkk amul fenn nag yaakaar naa journaliste yeeg ñi fi ñëw yëpp gis nañu yoon yi yàgg ngeen di fi ñëw kon donc wallu yoon ñu ngi koy jooy fajukaay wax nañ ko sànq mooy poste de santé bi nga xam ne boo fa demee doo fa fekk dara doo fa fekk kenn doo fa fekk dara te fa nga war a fajoo loolu ñu ngi koy jooy wàllu jàngukaay ñu ngi jàmbat lycée boo xam ne war nañ ko am ndox mi dafa war a mët courant bi maanaam suñuy njàmbat yëpp daal ci gàttal dañu ko tënk ci benn mémorandum mais pour jox leen yéen mooy suñu tawatu Kër Mousse la ñu indi fii tey di ko joytu ci wàllu suuf ci wàllu développement ci wàllu njàng wàllu faju wàllu lépp loo xam ne citoyen da koy soxla ñun dañ ko manqué maanaam ñun amuñu dara amul dara loo xam ne état ñëw na fi def ko fi pour population Kër Mousse de plus li ñu jot am akas néew ñu ngi koy nanguwaat suñu loxo di ko jox ñeneen joytu bi maanaam importance su conférence de presse bi tënk bi loolu la ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp